muy li nga xamante ne nii euh, euh, euh, jigéen ñi dañ leen ci doon sargal démb ci 8 mars bi mais également seen avis dafa am solo maanaam góor ñi nga xam ne ñooy góor góori jigéen ñi voilà ñooy seen i góor ñoom dafa am solo bu ñu yegsee ci lu mel ni ñu tàllal leen ñoom it ñu joxe seen xalaat nday mat yi def na benn doxantu boo xam ne dafa xool góor ñi ñoom ban gis-gis la ñu am non ci jigéenu Sénégal yi waaye tamit ci bës bi nga xam ne mooy le 8 mars nday mati jang nuyu naa la Kaz ñoo ngi lay fay. na nga def naka suba si. ça va alhamdulilah. yaa yaa ngi ci jàmm. waa ñu ngi ci jàmm waaw te dellu si waat nañu comme chaque lundi ci reportage société. waa ci reportage euh, société bi euh, dañu tàllal suñu micro góor ñi euh, juste pour xam ñoom ban avis la ñu am ci jigéenu Sénégal vu que démb lañ leen doon màggal ñu am si occasion nag pour xool ñoom ban gis-gis la ñu am ci jigéen de manière de manière générale. ñu déglu ko te dellu si. jigéen màgg ba ñu jagleel ko bésub lëmm ci àdduna wërngal këpp muy bés niki démb 8 mars. bon fête à toutes les femmes. occasion ci ñun ñu ndekki suñuy micro góor ñi ngir xam naka la ñu gisee jigéenu Sénégal kile cinquième président la ñu koy dàqantalee. ko am jëkkër da ngay sol ba mun naa bañ a def ay yàqu-yàqu yi ci mbedd bi ci loo xamee xale yu ndaw jigéen yi ñëw war ñu ko def topp leen biir kër ga moom lu la neex nga sol religion bi may na la nga doser sa jëkkër ndax mu bëgg la quoi bañ a xool yi ci mbedd bi ñoo xam ne jàmbaar lañu liggéeykat lañu mais am na ñoo xam ne nappkat nii lañu dañ lay napp quoi ci kaw sa ñàkk bi quoi dañ lay sourire loo léegi boo gisee loolu da ngaa foog ma nobb fekkee nobb la sa xaalis la bëgg loolu mooy problème mais am na jigéen yoo xam liggéeykat la fulla la ñu am seen fulla ba mu yàlla ñu continuer loolu Abdou Diouf mag la di chauffeur clando di addu ne donte kontaan na ci jigéen ñi teewul mu leen di ñaax ci ñu gën a xoolaat colin gi kontaan ci ñoom nag jàmbaar lañu dóorkat lañu a góorgóorlu

topp rek leen jàppale ah. weer wi ñu jagleel jigéen ñi ndax solo suñu am góor ñi bokk ko ak ñoom ci mbégte dem ba di leen di ñaanal ngir ku nekk ci ñoom yëg yokkute ci boppam. ku am jëkkër nga te sa jëkkër bu baax ak ñaar loxo ku amul jëkkër tamit yàlla la yàlla may la jëkkër bu baax. ña leen di ñaanal yokk ba yëg ko góorgóorlu seere. jigéenu Sénégal ndax yéen a ngi liggéey bu a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na. ndeysaan góor taxaw jigéen taxaw na. jërëjëf Ndeye Mati ñi ngi lay gërëm bu baax ci reportage ma nag nag waajoojo ma ci rey ki mujjee wax. day na ma ba ma dee. ki mujjee wax de dafa ñaan pare ah. rek ma dégg coro ni amiin. ndeysaan ñaanal na leen nag waaye noonu la leen bëggee <laughs> c'est ça euh, li fi nekk coro Mbaar te mu neex mooy euh, xale yi gó góoru Sénégal dañu bëgg seen ay jigéen cest à que mën nañoo xëy na des fois casse nga dégg ay violence mais majorité bi am nañu respect bu baax ci jigéen ñi te dañu bëri yërmande ci jigéen bëri na ay góor yu Sénégal yoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy toppatoo seen i jigéen et loolu am na solo. mais bien sûr Kals euh, Ndeye yi def na reportage bu euh, am solo euh, te gis nga Kals dama naan comme ni El Hadj Assane di wax chaque jour ce qui est vrai que dañu fësal xëj na lu bon ba ñu yaakaar ne moo ëpp ci société bi waaye wallaahi lu baax a fi ëpp. mbaax a jigéen ñu baax ñi ñoo ëpp fuuf. góor ñu baax ñi ñoo ëpp fuuf te gis nga Kals. Hmm. Euh, xam nga 8 euh, mars mooy bés bi nga xamante ni dañu ko jagleel euh, lépp lu jëm ci àqu ak yelleefu jigéen ñi. Hmm. ñu fexe ba lépp loo xamante ni moom mooy métit ak yeneen yu ni mel mu mën a tàqalikoo ak ñoom. Hmm. donc tey am na fu nga xamante ni agsi nañ fa ci wàllu ci wàllu wekk jigéen man je pense que lu am solo la. la maintenant il reste encore des choses à faire parce que am na lu ñuy xeex loo xamante ni ba tey mu ngi fi. Mhm. ñun tey xëj na li ñuy rêvé mooy société boo xamante ni kenn dootu fi dégg viol. Mhm. société bu kenn dul dégg ci euh, pédophilie. Mhm. mais ak yooyu noonu yëpp Kals euh, bu mu tere nag ñun jigéen ñu xoolante ci ba waxante dëgg yeddante suñu biir xam ni am na lu bëri luy dal jigéen bu doon góor góor du ko dal moroomu jigéenam moo ko koy teg. ce qui est dommage euh, tey pour man waroon nañu dépasser fu ñuy waxee solidarité féminine parce que waratuñ ko wax lu ñu war a jëfee la ñëpp di ci teg seen bët. Mhm. loolu lu am solo la. jàpp naa ni leneen man loo xamante ni ça ca tient énormément à cœur mooy. damay rêver société boo xamante ni jigéen ñi tey du ñu liggéey ci at yàq ko ci benn fan. Mhm. lu jëm ci puukare mu may pour man loolu xam nga mhm. wàññeeku na mhm. mais man bëgg naa ñu dem ba mu denc ci société bi tey quand on euh, parle d'entrepreneuriat les femmes sont devant mhm. te dama bëgg bu ma euh, li ma euh, li may rêvé mooy ñu dem ba lépp loo xamante ne entreprise bu mag la fii tey ci réew mi jigéen ñi ñoom ñoo koy jiite mais leneen lu am itamit mooy poste boo mën a am nga def ci fulla ak fayda parce que Kals on est dans des sociétés yu bëri yoo xamante ne tey les femmes ne sont pas ai déjà fait un dossier mas naa ci wax ak koo xamante ni jigéen la mu ne ma man personnellement je préfère mille fois personnaliser les euh, euh comment ça s'appelle responsabiliser les euh, les hommes que responsabiliser les femmes mu ne ma bu ñu amagul sax jëkkër mooy tane waaye bu ñu amee jëkkër Euh, tey dama am tour suba sama wujju peccorgo gannaaw suba sama goro. rendez-vous médecin rendez-vous chez le médecin bu ñu amee doom dañuy jël seen heure allaitement boo ko boole kook seen heure wàcc euh, boole kook du ñu ñëw heure du ñu wàcc heure liggéey bi di sooxee xam nga yooyu pour man hmm. ay affaire la yoo xamante ne dañu ci war a mën a def ay jéego ba nga xamante ne hmm. kenn ñu ci duutati ah, baaraamu tuuma parce que c'est parce que dafa am solo hmm. nekk jigéen warul tere nga organiser sa boo waree wàcc wàcc heure loo war a def def te loolu sax mooy jàmbaaru jigéen loolu mooy jàmbaaru jigéen hmm. après cas force majeure day am bu amee sa hmm. ñaatike dina xam ne kat lii cas force majeure la mu comprendre la par rapport ak bokku de choses am na leneen loo xamante ni moom mooy hanté peut-être le sommeil de beaucoup de femmes mooy lu jëm ci wàllu autorisation parentale euh, la dernière fois j'en ai parlé avec le ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall euh, bi nga xamante ni tey loolu dafa bëri jigéen ñu mu sonal boo duggee tey ci forumu femmes yi wala ñoom ci seen ay yenn collectif yu ñu nekk ñëpp dañu koy wax euh, parce tey da ngay am sa doom yow ak papaam ngeen séparé wala ngeen am problème wala nangam nga war a sax tukki ak sa doom wala même bu ngeen séparé wu nga war a sax tukki ak sa doom ñu ne la fokk papam signé autorisation parentale am na góor ñoo xam ne bu tombee ak ñu jotee ak yow du ñu signé donc dañ lay euh, takk buum pour gàllankoor la yooyu noonu yëpp doon lu ñu war a xoolaat parce que pour man jigéen euh, euh, ni amul kenn ku gën a mën a yor doom baroom bu jigéen bi nga xamante ne moom moo ko ëmb juróom-ñeenti weer donc ay avancé am na tey gis nañu institution yi nga xamante ne moom moo am ci réew mi jigéen ñoom ñoo ko jiite jigéen ñaa ngi jiite direction yi jigéen ñaa ngi euh, euh, jiite yeneen ak yeneen ak yeneen et loolu on applaudit n'empêche am na ay yeneen xeex yoo xamante ne mu ngi fi di des et on espère que dinañu dem ba àgg ci macha allah Thioro li nga wax li euh, li nga wax li dëgg la te aussi euh, gis nañ ko euh, gis nañ ko ci reportage bi aussi dégg nañ ko si que ni jigéen ñi ay jàmbaar lañ boo xëyee fajar gi nga yeewu da ngay gis mm. da ngay gis pratiquement oto yi ay jigéen kese ñoo ciy nekk wala da nga xamante ni dina am ay góor mais aussi tamit du du du nekk loo xamante ni lu lu lu bari la te da xool boo nekkee jigéen balaa ngay génn sa kër lu ci bari yow war na la euh, par rapport ak góor bi nga xamante ne dafay xëy rek dem mm-hmm. euh, ñu nekk nag ay jàmbaar yoo xamante ne li nga xam waaye dafa am lu am solo loo xamante ne góor ñi dañ ko wax ci biir euh, mm. ci biir reportage bi muy jigéen ñi donte ay ay jàmbaar lañ mais bon par rapport ak sol bi ñu ne bëgg nañ jigéen ñi gën ci gën ci bàyyi xel parce que tamit coro nit ki li nga xamante ne euh, loolu lañ lay nawee yow yaa koy def sa bopp mm-hmm. mënoo nekk di xëccu dara wala ngay xëcc wala ngay xëccu benn euh, benn poste te yow boo xëyee di liggéey yow tu n'es pas correct mm-hmm. xam nga tamit nit ki tamit pour ñu respecter la il faut que yow nga jox cër sa bopp voilà nga jox cër sa bopp sol lu correct nekk une personne nga xamante ne jigéen nga mais bon nga am fulla am fayda bu ko defee nit ki day xool ci loolu du la mën a dépasser fenn dalay jox cër par la force parce que loo xamante ne danga ko exiger la par la force da nga may jox cër mhm. euh, cër dafa nekk dafa nekk loo xamante ne jigéen daf ko war a exiger du xaar pour ñu wax ko naa mais juste yow par rapport ak sa comportement nit da koy xool da lay respecter par force mu nekk mbir moo xamante ne jigéen ñi dañ ko war a dañ ko war a. te image dafa am euh, solo aussi. voilà image aussi lu am solo la dañ ko war a dañ ko war a doxee. on interdit pas ñu topp mode wala ñu topp tendance bi mais mën na yiw quand même. Mhm. Ah, mhm. mën na yiw. parce que dañuy faral di wax ni jigéen tamit euh, jugement am colin gi daf ci xaw a bokk des fois nga gis xeetu colin yoo xam ne pourtant daanaka mën na bañ a mel noonu ah? mm-hmm. mais comme li ci kanam moom ngay gis nii rek nga mën a juger nañuy moytu aussi baax na ci surtout ñun suñu réew mi noonu lañ lay jàppee man am na leneen lu ma seetlu bu ñuy wax journée euh, journée de la femme Euh, je pense plus man à xale yu ndaw yu jigéen ñi c'est-à-dire que euh, ni ñuy sargalee jigéen ñi baax na ñu mag ñi ak ni ñu ko defee fête quelque part tout à l'heure tu as que c'est pas sax une fête mais journée la boo xam ne àq ak yelleef jigéen ñi euh, lañu ñu ciy fàttali mais damay bëgg surtout tamit ñuy bàyyi xel ñi nga xamante ne ñooy xale yu ndaw yu jigéen ñi ndax image bi ñu war a màggee ak seen i yaay wala ak seen i sœur day rejoindre un peu li doon wax léegi ci wàllu colu gi mm-hmm. wax yaay yi wax sœur yi mais nañuy bàyyi xale yu ndaw yu jigéen ñi parce que ñooy màgg ëllëg aussi mais xam nga aussi boo sagalee jigéen bu mag ça veut dire ne yow euh, sargal nga aussi xale bi parce que euh, euh, je pense démb maa ngi seetaan Coro mu ngi def benn benn portrait Euh, sur euh, Néné Fatoumata mhm. donc boo toogee wax fi mu jaar wax par rapport ak yi nga xamante ne enduré na ko xale bi nga xamante ne bëgg na su màggee mel ni comme moom day day gis boppam voilà da ciy roy xam ne kat diwkat fii la jaar kon man aussi war naa mën a am fulla nangam nangam bu fekkente ni yow bëgg nga mel comme nit ki mm. euh, c'est bien ñu wax la fi nga xamante ne foofu la jaar métti métti yi mu am en tant que jigéen pour yow xale bi aussi nga mën si nga mën si jàng bien sûr euh, c'est important parce que da ngay kooku dafay nekk miroir ci yow di xalaatee xëj na xale yi ne gën a jigéen ñi gën a nekk xale man noonu laay xalaatee jigéen ñi nga xamante ne kalzu ñoom la ñuy woowee les mères pères parce que dañuy nekk ay yaay et papa. Mhm. Euh, war a yor famille war a jouer ñaari rôle yëpp c'est pas évident pour jigéen noonu la sama xel di demee ci jigéen ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete ginnaaw euh, yàlla bu mu fekk ne nag dañu bàyyi njaboot ginnaaw donc yooyu yëpp ay taxawaay la yu bëri yu nga euh, xamante ni lu ci nekk rek laaj na taxaw seetlu parce que encore une fois li ñu naan magasin wu yàlla bi ci jigéen la ko def donc société bi ñun dañu ci am wàll bu nga xamante ne bu am solo la ba nga xam ne amul kenn ku fu baax xamante ni jigéen juru la tom comme comme tout comme amul kenn koo xamante ne euh, safaanu nga fi te jigéen euh, juru la donc dañuy ñaan rek yàlla suturaal ñu ba saa su nekk jigéen ñi di jur ñu baax que loolu moo gën ci société bi. macha allah am na solo merci beaucoup Ndeye Mati ñi ngi lay gërëm bu baax ci reportage bi nga ñu àndil tey fàttaliwaat ni euh, mën nañu koo fekk ci suñu chaîne YouTube bi en mode replay wala ci www.kingfm.sn lan mooy lu message sur ce reportage boo xam ne xëy na bëgg nañu koo bàyyee. waaw lu message bi mooy juste xanaa di ñaawlu li nga xamante ne am na mhm. euh, moment bi nga xamante ne mm, ñoo ngi célébrer la femme am na ñoo xamante ne ñu ngi rey ñu fexe aussi jël ci loolu ay euh, ay mesures rey bi euh, bëri na torop ci ay mbir yu ñàkk fayda waaw wax dëgg yàlla mhm. nañu nañu moytu loolu nañu moytu loolu voilà merci beaucoup ñi ngi lay gërëm bu baax Thioro également euh, euh, merci beaucoup ci ànd bi nga àndoon ak ñun ci subaak léegi ci actualité commenté bi moo xam meurtre boobu nga xam ne waxtaane nañ ko te Ndeye Maty tëjee ko libération provisoire bu Guy Marius Sagna naka noonu reportage bi merci beaucoup et puis rendez-vous suba di ñëw suba suba maa nga ca télé ba. Ah, doo ci cofal tuuti sax doo ko dem. <laughs> waaw kon xam naa dinaa leen cofal. daa <laughs> yow foo ma commencé def ak waa télé ba ndax ñu bàyyi ñu la. defanteel ak ñoom ndax ñu ah, bàyyi ma fii boo fi ñëw da ngay relax. Ah, télé ba nag da ngay sonn defanteeg ñoom. waaw mu bu wootee fee ñun ñu woote. waaw waaw ne la foone. waaw xam naa bu yàggee sax da ngay ñëw. man fii ma gënal xam nga nag. rajo télé la ñoom télé rek la la rajo ak télé rajo <laughs> radio télévision nationale. Merci, c'était un plaisir d'être là avec vous ce mm, matin. Merci beaucoup. Donc, euh, rendez-vous dans la semaine. jeex na ko rendez-vous dans la semaine ah je vous offre également ce titre de Youssou Ndour suñu yaay maa ngi koy may seen yaay yéen ñëpp waaw kay ah, ñi nga xam ne suñu yaay yi fi nekk ak ñi nga xam ne euh, ña nga àjjana ndax suñu xel dal na ci ñoom mm. ñi ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax di ci ñaanal sa yaay sa bos bu baax suñu borom teeru ko ca àjjana yu gën a kawe amiin yaa rabbi fa mu gën a seddee gën a neex amiin ndax suñu xel dal na ci moom merci à Ndeye Mati yow tam joxal ma ko sa yaay